info actualité sport politique buzz information en temps réel sur Info 2S TV xam nga leneen li am nag moo tax moom mi taxawoon nañu dialogue bi man maa ko initié sama dialogue la. ndekete xamut lañu war a wax ca dialogue ba. ñun ñu waat ak moo ko man kay waxuma ko Barth moo ne euh, euh, dialogue dañoo war a wax la ñu war a waxtaane man xaw ma ci yan référence lañ fa war a wax. luñ war a kii tam moom mooy borom dialogue. yow borom dialogue bu xamut lañ war a wax ca dialogue ba. est-ce que dañoo changé thème yi <laughs> est-ce que dañoo changé thème ah. doo doo Dakar Dakar de kii ñu ko jox que dañoo changé thème am déet ah non non c'est que nag nañuy fal borom xam-xam te bañ a wut ay guerrier parce que kii kii kuy guerrier guerrier benn waaye nag waxoon na ko ci campagne bi mooy parti bi ñëpp nan da ngeen di dof dof lu xaw ba la nag la waaji daal di ah man de jaax la daa part li bi bëgg ko ko mosel di nap kaawal mooy dina campagne da nga doon déglu gars yi effort bi la ñuy topp benn waaji ni waaw la gars yi benn waaji man benn dañ naan bas lim mii ñuy muy jaay nit ñi di natt waa koñ bi xam info actualité sport politique buzz information en temps sur Info 2S TV abonnez-vous.